Heavy Mess.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 ñoom daal la fa yoon donaate ñaari xale yooyu nag nee ñu ña nga xamante ca Casamance ca atum 2018 ku góor ki amoon booba fukki at ak juróom-ñaar ku jigéen ki am fukki at ak ñeent waaye li ñuy wax léegi rek relation xale yi moom lu ne ci xew maa ne xale yi dañuy bëtt frontières yi lu ne la ñu xam laa wax moo taxit moo mujjee dal ñaari xale yi ndax ci seen xamante googu bi mu amee ay weer rek résultat da feeñ ndax MBS bi nga xam ne kër tantam la nekkoon taa mujjee ëmb këy te ko ëmbal du kenn ku dul deesee xale bu jigéen bi nag bi mu ëmbee ngir protéger faru jar wi dafa fen fen wu rëy ndax daf ne dañ ko violé <laughs> billaay xale yi ñoo bëri pexe te nee na nag ñi ko violé benn bis mu joge woon soirée te ña ko ko def xamu leen parents nag bi ñu yegee njombel yi dañoo jël xale bi yóbbu ko ndakaaru ba MBS aussi ne doom bu góor terewu ko continuer dem di seeti waa ji ndax deesee tamit di faram wi dafa jóge ca Casamance ñëw ca Ndakaaru ngir yeggale jàngam ñoom ñaar ñu dajeeti fa <laughs> ma ne maye leen ñaari xale yi laa wax ba noonu juillet 2021 MBS di xale bu jigéen bi woowaat DC ne ko dama ëmbati <laughs> waaye xam ngeen ne mënul ñàkk waay xool bu ñuy roose kay meññ rek bi loolu amee nag DC ne ko xaaral ma wax ko samay way wayjur xale bu jigéen bi ne ko déedéet ndax dafa bëgg a yàq ëmb bi avorté subhanallah naka noonu bi tabaski 2021 ay fan DC waaye nee na envoyé na ko vingt mille francs ngir mu toppatoo doomam ne ñu tegaat si as tuut ndaw si woowaat ko ne ko am na benn sage am boo xam ni nangu na ko yàqal ëmb bi waaye nag daf koy laaj trente mille francs teese envoyé ko ko billahi xale yi teese nee na bi mu ko envoyé xaalis bi ne xale bi ci boppam woowaat na ko ne ko avorté na waaye nag dafa des benn liir ci biir bi ndax ay seex la ëmboon sa nga yëngu de ma ne xale bi di deesee mooy wax de nee na da doon sàcc ay takkaayu yaayam ngir toppatoo corom soosu cay mbëggeel teg ci na ñoom ñaar ñu ngi mujjee gisante avril 2021 bi weesu te nee na xale bu jigéen bi ci boppam moo ko doon seet sil boppam forcé wu ko benn yoon waaye xam nga ne loolu mat ta xale bu jigéen bi tamit ci kanamu attekaay bi wax na ne dafa ëmb ëmb sept mois ndax ne gannaaw bi mu wasinee doomam bu góoram bu njëkk ba dafa continuer di gisanteeg waayam sëriñ bi ci appartement frère am bi nekk ci seen wetu école ma ne may leen ñaari xale yi la wax yaayu xale bu jigéen bi tamit wax na nee lu tax mu yóbbuwoon doomam jooju ci kër tantam xale bi dafa amee jikko ma ne xale yi dañoo doy war ne duma na ko sax bi mu yëgee ëmb bi waaye xale bu jigéen bi nax leen ne dañ ko violé yaa ji nee na nag bés rek la toog frère ndaw si ñëw ci kër gi rek réclame ne moo ëmbal ndaw si yaa ji tekki ne xale bi bu mu ëmbaatee daf ko doon nëbb ne dafa ëmbaat ngir sàkket ko ëmb bi yaa ji ne bis bu nekk daf ko doon ñaan lu mu jënde ay serviette hygiénique <laughs> xale yi dañoo teel a bëri pexe la la wax tribunal bi nag li mu mujjee def mooy daan waa ji ñaari weeru kaso yu mu dul tëdd daanee ko lu ñuy tuddee détournement de mineur <laughs> man de ko nag fii kay détournement de mineur moom amuf ndax ñoom ñaar ba ñuy bëggante kii 17 ans la am kee 14 ans moo tax ma ne jàngoro ji dal réew gën a graaw mer romb na doy waar ab père de famille daal moo fa recruter ay xale yu jigéen yu jóge ca ndakaaru yóbbu leen ca Kébémer utal leen fa appartement di jaay xale yi te nag prix bi mu doon xale yi mooy guddi juróom-benni téeméer ay waay yomb na li ci doy waar nag mooy guddi bu placé xale yi ba mu des kenn père de famille bi daf koy woo ca appartement moom it ne fa moom <laughs> ma ne réew mi réew mi ci boppam moo tas réew mi lii ko um réew mi lu ne nga fii dégg moo suñu réew mi daal mooy loolu mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz